taalibe ñoo ngi leen di ziar bu tey di leen màggal bu baax a baax tey di leen tatagal ci bis bu tedd bi bisu sant Serigne Touba mi nga xam ne fa dara nekk moo ko def ñu ngi leen di ziar bu ci biir lool yi ñu profité di ñaanal Serigne Mountakha ba si Serigne Touba yokk ay fanam ba naan yi nga xam ne naan na ko diggam ak Serigne Touba mu egg ci ay loxo di ñaanalit Serigne Cheikh Jëmb Fall. Serigne Touba yokkal ko ay fanam ba liggéey bi nga xam ne dox na diggam ak maam te tedd ma Cheikh Ibra mu egg egg goo xamante ne dina fa wax njottam ci barke borom Touba kon xanaa ci biir loolu yi ñu ngi ciy ñaan jëmmi Serigne Touba yi ndax defe naa ne lu xeebu xeebu it nekk taaliba bu sañ ñaan ndax ñaan Serigne Touba ku ne sañ na ko ndax Serigne Touba moo ne wa bee yan faxul wala ci yàlla ci man la yàlla di jëriñu mbindeef yëpp. kon ñu ngi ciy ñaan képp koo xamante ne teew nga fi Serigne Touba jéggal la say bàkkaar te bépp aajo boo fi indi Serigne Touba fajal ko faj boo xamante ne dina kawe sa jot ñu ngi koy ñaan yëpp ndax defe naa ne bis bi moom àttan na ko ndax bisu sant Serigne Touba la mi nga xam ne képp ku am jàmm moo la ko may te Cheikh Moussa Ka day wax ne dañuy fedd leen di cant ngir Bàmba moo nu may nu jébbulu ànd ak moom. ndekoon léegi noo ngi mooy ne yéefari ak naafiq yaa lii mooy di wéy te nun noo ngi ci lislaam nun di waar ka saddi way ba tax noo ngi wax loo xam ne yaaram ya xamti ko loolu la wax kon sañ nanoo ñaan sëñ Tuubaa nga xam ne lu ko waay ñaan mu defar la ko waaye xanaa ci biir loolu rek ni nga xamante ne noonu la ko waa commission culturelle daan defe mu nekk gëstu boo xamante ne lépp day delluwaat ci mbindam sëñ Tuubaa minal xadiim ilal xadiim ci biir loolu yëpp ñu jël ci loo xamante ne lu am solo la tey lu mat a bàyyi xel na ñu ngi ñaan mbokki taalibe yëpp ngir jëm ci Tiwaawan bàyyi ko xel ndax defe naa ne rajo yëpp a koy wax murit yëpp koy waxtaane jataa yu toog nit ngi koy wax léegi nag loolu loolu dañ ciy bëgg a jublu waxtaane ko loolu mooy lan muy ak taalibe nga xamante ne ak taalibe mën na noo wax ne Serigne Touba ak taalibe moo tax mu sos yoonu murit taaliba googu ba tey boo ko génneen ci ak murit man na ne ak murit bu doon jëm ak taalibe mën nañu wax bu wér a wér na mooy roogi loolu moom mooy lu wér te eh, laataa ñuy leeral baat boobu nga xamante ne moo di ak taalibe dañuy njëkk leeral li nga xam ne mooy lan mooy ak murit ba noppi ndax defe loolu am solo ndax bu delloo ci mbindam Sëriñ Tuubaa day wax ne am murit mooy ki nga xamante ne aji nam la waaye lan la nam mu ngërëmul suñu borom ndax sëñ Tuubaa day wax ne na ngeen am ko suñu borom la nga xam ne du ko jox ab saay-saay te du ko jox ab yéefar te loolu mooy ngërëmal yàlla suñu borom sëñ Tuubaa daal di wax ne murit bi aji nam la nu ne ko lan la nam mu ne lim nam nag moo di ngërëmal yàlla suñu borom kon murit bi dafa am lu nam waaye ginnaaw bi nga namee ngërëmul sëriñ Tuubaa nin koy misaale day mel ni dangaa mel ni soldaar boo xamante ne dangaa jëm ci xare ba waaye ngànnaay li nga xamante ne moom ngay ngànnaayoo moom nga yor loole ak taaliba lañ koy wooye te Serigne Touba dafa waxan ci wax di si daal di wax ne jamono gi ñëw joo xam ne ñaar dana na gaañu benn réer mër Serigne dafa wax ne jamono gi ñëw joo xam ne téere yi dana na gaañu koom mi ne gañ ay téggu ndër waaye Serigne Touba nee bu boobaa maa ngi leen di dénk ngeen ci ak taalibe te ngekk ko ci seen bëñ ba ñu wax seen te bu leen ngax ba ñoo ko ci di ko yóbbu loolu la Serigne Touba wax kon ak taalibe nan xam ne lu jafee jafe la tey nit ñaa ngi koy wax xamul lu mu ndax sëriñ Bay Jaxate bu ñu delloo ci mbindam day wax ne ndaxam am murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit mu ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne am murit laa te doo am murit loolu la wax mu daal di wax na it murit bu itteje daanoo mët la waaree di sax ngir jom ja jeena amatul soxlaati far ci lu baax kuy waare muy nit ñi ci koy randu lëf du ko sax lu dul ndox ak lal bu nooy ak ñamu seetlu bu baax kon moom dafa leeral ne la Sëriñ Tuubaa waxam jëmmi taalibe bi bi nga xam ne dana am murid lépp loo xamante ne yittewoo na ko li mu bëgg diggam ak Sëriñ Tuubaa am ngi dee jafe lool lool loolu moo taxal mag ñi jaayante nag Sëriñ Tuubaa jaayante gu wér waaye ginnaaw bi nga xamante ne jëmmi taalibe bi nekk na am nekk gu wér ni ñu ko waxee léegi mu wëlbatiku namm li nga xam ne moo di ngërëmul Sëriñ Tuubaa la ca war a teg mooy nit ki taalibe bi daal di sax ci li nga xamante ne moo di ak taalibe ndax ni ñu ko waxee léegi Serigne Touba dafa am na mag ci nettali Serigne El Hadj Mbacke mag mi dafa ñëw ci Serigne Touba ne ko dama lay laaj la moo di ak taalibe wax na ne bi mu ko laajee Serigne Touba ku tedd ki dana dënn nga xam ne bu doon kuy fàtte waaye Serigne Touba du fàtte ndax allamani laahu alim mimmaa yashaa'u min xulum Serigne Touba ne na yàlla moo ko jàng lépp lépp lu yàlla xam bu leen neexee ngeen demal xam naa ko. Sëriñ Tuubaa daa mag mi daa di wax na bi mu ko laajee ku tedd gi sëñ bi dana dënn ba bu nekkoon kuy fàtte ne fàtte na ko ba ca ñetteel bi yoon ba wax na ne Sëriñ Tuubaa ti boppam moo ko waxal boppam ne ko ak taalibe day nekkul loo xamante ne mën nañ koo wax ndax nekkul lu ñuy wax Sëriñ Tuubaa ne ak taalibe des koy def ci nit ndax bàyyil yàlla te jàpp la Sëriñ Tuubaa wax yàlla te jàpp ma Sëriñ Tuubaa na loolu nekkul lu ñuy wax nit waaye lu ñuy def ci nit la ndax Sëriñ Tuubaa ci njaareem dafa am benn bis sëriñ Ahmadou Fall Sadio ak sëriñ Fallou ak sëriñ Mouhamadou Bachir sëriñ Touba woo leen ba ñëw mu ne leen kaay ma yónni leen ca seen baay Cheikh Ibra Fall wax na ne bi ko mag ñi wanee ginnaaw sëriñ Touba woo leen ba ñëw ne ko Ahmadou Fall Sadio mu ne ko Mbàkke mu ne ko du caage ne Cheikh Ibra Fall damaa defal lu ngeen ma defu déedéet damaa defal lu ngeen ma defalu déedéet du caage ne Cheikh Ibra Fall damaa teg fu ngeen ma tegu déedéet demewul noonu waaye Cheikh Ibra ab xolam amul kanam ak ginnaaw Cheikh Ibra damaa bëgg ba jeex ci man tàkk ndax Serigne Touba dafa wax ne Cheikh Ibra damaa bëgg ba bàyyi ay mbokkam yi ko bind bàyyi ay mbokkam ngir man bàyyi boroomam mi ko bind ngir man bàyyi jëmbi boppam ngir man waaye Serigne Touba dafa wax ne Cheikh Ibra Fall day dama koo jël marale ko yàlla boroomam defal ko ci boppam lu mu ci mënut boole ko mbokk yi gën bokkam ndax Serigne Touba ci boppam dafa wax ne Cheikh Ibra day koo xam ne bu ma ko Seex Ibra mu ne ma Fall ma ne ko yàlla ji ma doon topp yàlla ji ma doon jaam ba tax nga may topp man Seex Ibra toppatuma ko Serigne Touba nee na bu boobaa du tax Seex Ibra ba ma kon kooku moo gëm Serigne Touba moo wóolu Serigne Touba moo kennal Serigne Touba te Seex Ibra moo jàngale li nga xam ne moo di taalibe waaye loolu des na ci ñëw ci xaaju ñetteel bi muy Serigne Touba ak mag ñi ñoom nan la dunde woon li nga xamante ne moo di ak taalibe ndax ni ñu ko waxee woon léegi dafa nekk am solo ndax ak taalibe ku ko wax wax ay teggin waaye ak taalibe ba tey képp koo xamante ne wax nga ko da ngay delluwaat ci la Sëriñ Tuubaa waxal sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtira ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne téere boobu di sifaatu saadixil murid Sëriñ Tuubaa nee na Sëriñ Tuubaa nee na dafa wax ne jëmmi téere boobu dama koo taalif ngir xamal ci murid lan la ci bëgg a xamal murid téere boobu di sifaatu saadiq murid bi ixtisaam ñeenti melo la ko Serigne Touba tënke nu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax Serigne Touba dafa wax ne man Serigne samay wax togg ku xiif la te ku xiif bu la toggalee da ngay gaaw lekk ko mbaamu lekk ko daa di wax ne lépp lu ma mas a digle def naa ko te lépp lu ma mas a tere musuma koo laal ak loxo mooy wax ji may wax mooy Serigne Touba sifaatu saadiq murid bi ixtisaam ñeenti melo ko tënke waaye li tax ma ne na ko murid ñetti mala yooyu ku ci benn dee boo nga waat sa digg Sëñ Tuubaa ne doo mën a te bu la neexee tamit nga taxaw waat ne sama taalibe des na moom la di ba a wax Sëñ Tuubaa bi waxee ñeenti mala yi ne dama koo woy waaye xaw faxtiraar damaa bañ taalibe yi jàpp na ñoom murit saadix lan danoo am ak taalibe te demewul noonu Sëñ lan la jiital dafa wax ne as-siddiq fi mahabbati cheikh abad la Sëñ Tuubaa dafa wax ne melo bi nga xamante ne moo njëkk ci ak taalibe bi mooy yow jëmmi murit bi nga bëgg sëb sëriñ bëgg gu wér waaye bëgg koo xamante ne day sax ba faw te ba tey ci biir bëgg Sëriñ Tuubaa ay ngërëm yu bari ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne add xalta nii fii xal bi bëgg si falaax Sëriñ Tuubaa na yàlla moo jël leer bëgg Sëriñ Tuubaa def ko ci képp koo xamante ne dafa nar a dem àjjana loolu la Sëriñ Tuubaa wax daal di wax ne nafaxa ni naafixu nafxan jadaba li xal ba kulla faay min fan jadaba daa de wax ne man Serigne Touba ne yàlla moo ma defal jariñ loo xamante ne képp ku nar a dem àjjana da nga may bëgg te doo ko tey loolu la Serigne Touba wax kon li ci jiitu taalibe bi mooy bëgg Serigne Touba bëgg wér li ci topp ginnaaw bi nga bëggee Serigne Touba loolu doyagul ndax bëgg Serigne Touba ab xolo ko yëg waaye aw aw làmbañ moo koy tudd waaye ay cër koy jëfe Serigne Touba daa di wax ne li ci topp mooy su manti saalu xay su na yow taalibe bi bi nga bëggee sa sëriñ bëgg li ci des mooy nga taxaw ci ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu la sëriñ Tuubaa wax te sëñ Alaaji Mbàkke dafa nettali xisa bu am solo boo xam ne murid yëpp war nañ koo bàyyi xel sëñ Alaaji Mbàkke dafa wax ne sëriñ Tuubaa moo wax mag ñi ne bépp murid bu man bu man di doon bis ba nga raamee sub daal di jébbalu ne aslamtu nafsi sëriñ Tuubaa moo wax ne bisub keroog boobee laa wut waxande mooy gaal wutal ko bën bët jël doom ba def ca mooy caabi Sëriñ Tuubaa ne na képp koo xamante ne jébbalu nga lépp loo jëf boo demee ca jàng fekk ko ci àllaaxira te Sëriñ Tuubaa ne ne lépp ci waay def dinaa la ko fulal man Sëriñ Tuubaa waaye ku ca deful dara Sëriñ Tuubaa na doo ca fekk dara te nee na bu àllaaxira du ma fi taxaw di layal kenn man Sëriñ Tuubaa te duma fi taxaw di layal kenn loolu Sëriñ Tuubaa wax ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne bind naa bàyyi fi wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis moo sax Sëriñ dafa layo jàng fii te demagul ndax sëñ Tuubaa nee na doomu bi ci àdduna lan koy ramboo nu ne ko nan lan koy nan nga koy ramboo mu ne da nga koy digal muy def sëñ Tuubaa na nga koy teram muy baax waaye nee na képp koo xamante ne mënoo koo digal mu def mënoo ko teram ba sëñ Tuubaa nee na kookee mënoo koo yóbbaa jana loolu la sëñ Tuubaa leeral kon boo xoolee ci biir nga xam ne jëmmi murit bi bi mu bëggee sëñ Tuubaa ni mu ko waxee bëgg gu wér day taxaw ci ay ndigalam bàyyi ay tere waaye nan xool ci jamono jii di xew taalibe gu bees bi xew nga xam ne ku nekk dangay ngay beru ci sa bopp xool sa taalibe ni mu ni mu dëppoo sa bakkan nga koy dundee noonu déedéet yoonu loolu ndax Sëriñ Tuubaa da koo ñàkk nan la ko ñàkk mooy bind ay téere yu doy bàyyi fi wax lu doy bàyyi jëf lu doy bàyyi kon defe naa ne kooku kenn mënu koo sosal ndax sëriñ bi dafa waroona ak sëriñ bi warutoona loolu dee su ko wax déedéet sëriñ bi ak ciipatu loolu day yàq ak taalibe loolu mooy li we te li tax ak taalibe am solo ba tey ci biir loolu Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wa tarku lixtidaali mutlaqan mutlaqan la wax nee na wa tarkul lixtiraat da ngay bàyyi daara waaye mutlaqan lépp lu mën di doon mooy taalibe bi sëñ toog naan sëñ bi lii mu wax nangam wala sëñ bi li mu digle nangam déedéet sëñ Tuubaa ne lépp lu mën di doon ci sëriñ bi sëñ bi nee na waroo ko weddeew da nga ko war a gëm loolu sëñ Tuubaa jàngale sëñ Tuubaa daal di wax ne wa maxahu te nga ànd ak moom lan ci lan nga ànd ak moom salabu ixtiyaar ci lépp lu mu la tànnal mooy sëñ bi tey bu la takkalan soxna waroo caa xelaat dara da ngay jël yóbbu sa kër jàppate kii da nga war a am sa ndax Sëriñ Tuubaa moom moo wax ne laa tax taxalaw sayan bi ni isni fal isnu sàttan fi xabali chen ne bu leen def dara ci lu dul ndigal lépp lu ngeen di def na ko tënk ci ndigal ndax Sëriñ Tuubaa nee na ndigal kat ab sàtt la ci nangu jëfi doomu aadama bi ndax dafa am benn bis ci njaareem Cheikh Issa Dieng daal di jël kërum njaareem ji daal di koy lay ba egg bi mu ko layee ba noppi Sëriñ Tuubaa daal di génn daal di wax ne kan moo yeesal kër gi ñu ne ko dafa mel ni Cheikh Issa Diène Sëriñ Tuubaa leen ma ko wax na ne ba mu ko ba Cheikh Issa Diène ñëw dana ko Cheikh Issa mu ne ko Mbàkke mu ne ko nii nga def kër gi dindi ko wax na ne Cheikh Issa Diène di dindi kër gi di jooy Sëriñ Tuubaa woo ko ba mu ñëw ne ko Issa Diène lan moo waral jooy Sëriñ Tuubaa ne ko Cheikh Issa Diène ne ko man de damaa jàmman ci àdduna damaa jàmman ci àdduna ne man Cheikh Issa de ko seen maa def lenn loo xamante ne lu naqari Sëriñ Tuubaa yi doon Sëriñ Tuubaa ne ko déedéet Isaa demewul noonu waaye day def ne dindi gi nga koy dindi dindi gi koy dindi moo gën ci yow def gi loolu mooy laa taxmalu shay'an bi xayri izni fal ismu saatal fi xebolu cheni ba tey Sëriñ Tuubaa ci biir mala yooyu mu daal delluwaat wax ne xam nga bi waxee ne wa maa salbul ixtiyaar waaye xum zanni yi dañ koy rafet njort bilaa inkaar gi dul ngay werante kon ginnaaw bi nga bëggee sa sëriñ bëgg gu wér sax ci ay ndigalam bàyyi ay tereem te doo sikki sàkk ci sëñ bi dafa am leneen loo xamante ne da ci topp lu ci topp mooy sëñ Tuubaa dafa am mayum ci dafa wax ne fa kullu man képp koo xam ne jamaa boole na lan la boole xaalis sifaat yi la melo mbindal muridina ca murida sëriñ Tuubaa ne ne kookee fa yudriku sikaat dina dab ñi nga xamante ne moo ñu kawañe loolu la sëñ Tuubaa wax kon képp koo xamante ne dajale ngay ñeenti melo yooyu ma wax baat boobu nit ñi tàmm wax mun ay mun muy ak taalibe ne la wér na làq ko sa digg ak Sëriñ kon loolu nañ ko gën a bàyyi xel ndax dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ndax Serigne Touba dafa wax ne bu àllaaxira ba nit ñëpp dekki nee bu boobaa day bépp waruwaay bu nit man di war bu nit ak taalibe Serigne Touba di ngeen egg ci barab boo xamante ne la nga wàcc boppam moo naan la man fii laa mën a mënatumaa dem waaye Serigne Touba nee na des ak taalibe kon defe naa ne loolu nekk na loo xamante ne am na solo waaye nekk na loo xamante ne war nañ koo gën a bàyyiwaat xel muy ak taalibe ndax boo xoolee ba tey ci biir loolu. ñu ko misaale ba ku nekk defe ne war na cee gis boppam gën ràññee lan mooy ak taalibe ndax ginnaaw bi nga saxee ci ndigal yi bàyyi tere taalibe bi dafa am leneen lu war a gànnaayoo mooy la Sëriñ Tuubaa waxam daa di wax ne na ngeen jiital xam lu seen borom ba pare njëkk ngeen koy jaam ndax faxrifooni xabla an taxbudooni fa in lam yaxrifooni fa kayfa taxbudooni yàlla suñu borom moo wax ne xam lu leen ma njëkk ngeen ma jaam ngeen ma xamul naka ngeen may jaamoo Sëriñ Tuubaa daal wax ne wa man tajarrada li taatil jalili xabla tahallumin fa xumrun laa nabi daal di wax ne képp koo xamante ne danga ngaa futtiku na yaa ngi topp sa borom te xamoo Sëriñ Tuubaa ne fa xumrun suukara yow dof nga boo xamante ne dangay ngay nelaw loolu la Sëriñ kon taalibe bi li muy njëkk a jëfandikoo mooy mu gën a delluwaat ci mbindum Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa ba nga koy bind bind koon ngir dara da koo bindal ngir taalibe yi jàng ko daal di ci jariñ ndax boo xoolee li Sëriñ Tuubaa wax ci midaad yi dafa wax ne hëddayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi xiyaali bi zikri ma salaati wa bil madahi daa di wax ne yow yàlla suñu borom yow yàlla suñu borom jubalal sama njaboot ci sama taalif yi may tagg ak tagg ak tagg gi nga xamante ne dama koy doxal sama digg ak yonent bi kon Sëriñ Tuubaa dafa bind mbir na mi ngir ñu koy jàng delluwaat ci ak bëggal mel ni nga xamante ne noonu la Sëriñ Tuubaa bëgg lu mel ni ndax xisa bu suy boobu nuy nettali Sëriñ Tuubaa dafa wax ne bu àllaaxira ba yàlla suñu borom jël jaam ñëpp pang leen nee na bu keroogee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dong mooy seen jóg dem arab su jóotal suñu borom nee na bu ko su jóotalee ba mu ne ko sécurité dem ramu jàmm Sëriñ Tuubaa dafa ne keroog bu yonent bi ñëwee ba yàlla yëkkati drapeau ba jox ko ko ne ko dema ramb ko la neex Sëriñ Tuubaa nee bu boobaa dama koy dogale wax ko la ma ko waxoon ci àdduna ne ko antal karimu annal xadimu dëxran uddiin fii ko sanaay nee na keroog bu ma ko waxee ne ko antal karimu yow yaa ko waaye man annal xadimu man Sëriñ Tuubaa man maay sab liggéeykat dëxran uddimu fii ko Sëriñ Tuubaa nee na bu keroogee yonent bi di yëkkati drapeau ba jox ma ko ne ma Ahmadu dama ram képp ku la soob waaye Sëriñ tubaa da cee tegu dafa wax ne bu keroogee man Ahmadu liy sedd sama xol mooy bu keroogee taaliba bu nekk sañ a jóg këf dara këf drapeau bi ci man ram bu jaam ñëpp te mu li dëggu ci yow loolu la Sëriñ Tuubaa soxla waaye Sëriñ Tuubaa soxlawul leneen ci taaliba yi mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa jaamoo ko yàlla ni Sëriñ Muntaxaa di wax waaye jaamu yàlla liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa loolu la Sëriñ Tuubaa digal waaye ba tey ci biir loolu taalibe bi bu saxee ci ak taalibe ba téye ko ci loxoom daal di koy koddaay li nga xamante ne moo di ay teggin ndax wa kullu man bi xëyri raamati baax fa innahu yuxramu na képp koo xamante ne dafa dëgmal boroomam ci lu dul ay teggin Sëriñ Tuubaa nee na kookee day du jariñu te dina ko dis ko xam li nga xamante ne moo di ak texe moo tax Sëriñ Mbay Jaxate daal di jóg wax ne mbooleem dee fi jóg di wut yaraku gën gën koo rafet moo jara dox junni bi ak di wut sëriñ bi la ko jox daal di wax ne ku yaru rek ka mat a xam ku yaru rek ka mat a am ku yaruwul mëtu la am mëtu la xam ku ma sax li tax ab yar amul moroom day tax a gën fa say moroom day tax a gën fa sa borom ku la yarul rek a la nax loolu la seet loolu la sëriñ bay ñax daal nga xam ne taalibe bi ginnaaw ko dajale loolu lépp ba téye ko ci loxoom teggin ak taalibe kooku nag danoo bëgg a waxtaane ki nga xam ne dafa amul taalibe lan lay am ci mbay Serigne Touba waaye gannaaw loolu dañ koy laltaaye ci benn tomb bu ndaw rek ci biir muy ñu delluwaat ci Serigne ak ay mayam ba taalibe yi gën a xam ne ak taalibe am na solo ndax bay bu siiw boobu ñëpp di dégg Serigne Touba di koy muy muy dalla nee la wax laa Muhammad yi waxaale nii Muhammad ni samani loolu dafa am ñetti tolluwaay ba ñetti yoo xam ne am na ci waaye dañuy leeral ñaari tolluwaay yi rek ndax ko may ndax Sëriñ Tuubaa bi mu waxee ne dalal ñeen laa wax alaa Muhammad Sëriñ Tuubaa ne yàlla borom moo ne ko jas ne ko toppal yonent bi bi mu eggee ci yonent bi Sëriñ Tuubaa nee damaa liggéey yonent bi ba egg nag moom foo xam ne ku fa egg nag màggatul laa ba moo xam ne yurub du mel baam Sëriñ Tuubaa nee dala jox dëju Sëriñ Tuubaa nee na booba la ma yonent bi yëkkati delloo ma man sama loolu lañ bëgg a waxtaane ci biir waxtaane bu ko defee taalibe gën a delluwaat ci njariñi sëñ bi ak xam ne ak taaliba ngànnaay bu am solo la sëriñ Tuubaa li jiitu lool dafa waxal ne ajaabani rahmaan xablal saxi na afa sannatin bil xaq daa di wax ne man sëriñ Tuubaa de làq naa ngeen mun suñu borom laataa ñu bind aadama ak awa loolu sëriñ Tuubaa waxal kon delloo ga nga xam ne yàlla suñu borom jël na ko delloo ko yonent bi lool moo ko waral ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne yàlla bi mu ne ma toppal yonent bi ma dugg ci pays suñu borom bi di wër yonent bi di ko wër di ko wër ba fekk yonent bi tëdd ci njoowaanu urus malaaka yi di ko jow Sëriñ Tuubaa nee na keroog laa xam ne ndekete yàlla suñu borom nangu na sama xasida yi ndax Sëriñ Tuubaa nee na yàlla ni mu nangoo sama xasida yi mooy min asasin li balsasin xabilta xasaa yi di kama laha bajalta Sëriñ Tuubaa nee yàlla suñu borom aj na sama xas yi waaye tamit màggal na sama xas yi ci biir lool la Sëriñ Tuubaa waxee ne bi ma fekke yonent bi ñu koy joow nee na la ma xamal ne nu na doon sama xasida mooy malaaka yi ko doon joow ñu ko doon wax naan chamsu sumoo raasu ruso raaw ruusi xayrul anisi li law li yaay sëriñ tubaa ne na keroog falaa xam ne sama xas day nangu nan ko sëriñ tubaa di wax ne yàlla sama borom war na ma surub yonent bi ci wër gi ma ko doon wër lu na ko bindal sëriñ tubaa ne arrêté ni sirra rasulillahi bi waaye waxaala laa ilaha illallah daal di wax ne yàlla sunu borom war na ma mbóotub yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ne nafal la si lam yarda bi waaye wa satara sirri waaye ne man sëriñ tubaa de man dan maa suturaal ba kenn xamul ci man dara kon sëriñ tubaa du xam Sëriñ Tuubaa noonu la toppee yonent bi di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba daal di wax ne lahoo dëhëra niyaati wa xilmi wax xidmati wa ruuhi wa jusmaani waaye wa kulli bila shukri ne ko yonent bi jox naa la sama yéene ak sama ruux ak sama liggéey man Sëriñ Tuubaa ba desee la tuma la dara loolu la ko Sëriñ Tuubaa wax daa di koy wax ne ko yasuru ko min ni xasuma kuntu yaa muhi fuaadi wa ruuhi bil busaaraati sa tey ne ko yow bi na la maa ngi lay ziyaare ziyaare goo xamante ne ziar rek taxañ lay doon mooy dan ma lay taxañal ba ba nga ñëw ma ziaral man Sëriñ Tuubaa ndax sopp ku ma la sopp Sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax man ñu ne leen keroog ba ma waxee bëy boobu yasuru ko min nii xansuma kuntu yaamu yi fu aaji wa ruuhi bil busaaraati saa tey Sëriñ Tuubaa ne na keroog la yàlla suñu borom sàkk juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ne saa suñ xëyee dañuy ziare ji yonent bi saa ngoon jotee ziare ko ngir màggal sama xam ne wax ci yonent moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne bëy boobu képp ku ko wax fi nga toog am nga yool aji màkk ba ñëw yasuru ko min nii xaysu maa kuntu yaa muhi fu aaji wa ruuhi bul basaaraati zaata yi loolu la Sëñ Tuubaa wax topp yonent bi di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba Sëriñ Tuubaa nee na bi lam lépp da koo yëkkati jox ma ko man Sëriñ Tuubaa yóbbu ma ci boromam Sëriñ Tuubaa nee na keroog laa yéege yàlla yéegu yonent bi loolu nag wax bi rëy la Sëriñ Tuubaa dafa wax ne yonent bi ba ma yóbboo ci suñu borom keroog laa yéege yàlla yéege yonent bi ndax Serigne Touba dafa wax ne keroog ba ma eggee yonent bi dafa bëgg man daal di wax suñu borom ne ko jaam bii nga ma booleel de gërëm naa ko suñu borom ne ko jaam bii de man maa la gën a bëgg ci moom Serigne Touba ne yàlla suñu borom fa mu dafa jàll fu ko gën a kawe daal di la bi toogal moo tax Serigne Touba ne maa yéege yàlla yéege yonent bi loolu la Serigne Touba leer nga xam ne noonu la ko Serigne tubaa jàppe di ko nettali Serigne Alaaji Mbàkke nee na ci tënk rek Serigne Touba noonu la ko boromam këfe sànni ko ci biir sëñ Tuubaa nee na keroog ba ma sànni ci biir jotaay wàllu ya ña fa nekk wàllu yu wolof sëñ Tuubaa nee na ñooy ña nga naan kii kan la ña fa nekk ay pël naan kadum wóol yi ña fa nekk ay naar naa man xaasa waa ahmadu waa yónnent bi yow kii mooy kan Sëriñ Tuubaa nee na keroog la ma sama borom ne ma tes yóbbu ma foo xam ne fu ma toll di xam ci ñoom dara te ñoom dootu ñu xam ci man dara Sëriñ Tuubaa ne daal di wax ne xasaa inu rabbi futtixat lii waa zax-zaxat xëy na aza dunya wa oxra ba zax daal di wax ne man Sëriñ yàlla ubbil na ma ay magasin waaye yëmu ca nu ne ko ahmadu bindal sëñ Tuubaa ne yaa maalikal mulki lii wa saxta duna jawan fil mulki wal malakooti def rek yàlla daa wax ne man ak yàlla suñu borom léegi dama bokk nguuram gi bokk boo xamante ne yàlla dina ko yemal fii mooy yaa maalikal mulki lii wa saxta yaatal nga ma waaye duuna jawan amut bu laal fi ak bu laal fee fil mulki ci lu bu fil mulki wal malakooti ci lu nëbboog lu feeñ moo tax sëriñ Bay jaxal na ko ngëneeli àdduna ak alaaxiraa yow ku bëgg a jiitu moroomam fekk si la kuy kër këree ko wutum mbaaxit fa waaju la mooy xam ci la muy kër këree ko te nuy siw la yaa woote ngir yàlla nun noon ji ku gàntu torox te yàggatil ba xolam seddit te wuy siw la wootee la woote ku dul dem naari mujj ne xum ba mel ni xum waaye kuy dem naari dégluwu la ne ko yaa seet weles musulaa dox sax fu taq lu bon seetal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi defoo lu bon musulaa def benn bis lu warul te waaju dul yow defal na kenn mës la jox yàlla àqam benn bis dara yow gin naa ni gin naa ni wax ji soxlawul tuubi ne ko yaa xëy na doom ngir yonen ba tey wéy ba yëgg rek nga del si yóbbu koy tuubi moo tax ku wuutee ci ak yow ko amatul aw yu waaye mboolem ku jóg may la tey moo def lu jar tuubi nga xam ne Sëriñ Tuubaa loolu la am ci liggéey liggéey nga xam ne doon na ko liggéeyal yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci biir loolu moo tax mag ñi muy ñetteelu point bi moo tax mag ñi daal na dan Sëriñ Tuubaa daal di koy topp da ko wax ne ko boroomi daaraa la fi raama raamal taxanam sa diine na ku koy limtikaaram sëfu la léegi nag loolu moo tax man ngi topp Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa wax ne wa bee yan faxal waraa ci man la yàlla suñu borom di jëriñu mi ndéef daal di wax ne man Serigne Touba jaawastu naas wamaa fi aydi naas ilaa rabbi naas fa lama wasaltu ilaa rabbi naas axtaanee naf ko naas waaye kafa waaye wa kafaanee dura naas na jaawastu naas dama fay jéggi nit ñi nu ne ko mu ne wa maa fi aydi naas a li nekk ci loxoy nit ñi man Sëñ Tuubaa ma ko fee bàyyi ñu ne ko foo jëm mu ne ilaa rabbi naas ma dem ci borom bindéef ñu ne ko bi nga demee ci borom bindéef loolu wuti mu ne fa la maa wasatu ilaa rabbi naas axtaayee naxu naas yàlla day yëkkati njariñu njariñu njariñu mbindéef yëpp teg ko sama loxo man Sëñ wa kafaa nee dura naas Sëriñ Tuubaa daal di wax ne kenn mënut ci man dara man Sëñ Tuubaa kenn mënu maa lor moo tax ba mu nekkee ca Gabon mu jaayante tubaab bi daal di wax ne man Sëriñ Tuubaa katatu fil bahri inni la amuji yëji ilaa nasaara abidil maay wa tiin daa di wax ne man Serigne Touba maa ngi bind di jaayante ci géej gi sama loxo bi du ma ko tàllal di ko jëmale ci am nasaraan loolu la Serigne Touba wax nga xam ne loolu mu nekk wax ju rëy waaye tamit mu nekk wax joo xamante ne wax ju kawe la boo ko xelaatee waaye ba tey ci biir loolu ni ko waxee woon léegi mag ñi akub taalibe mag nan la dunde woon li nga xamante ne moo ci ak taalibe seen digg Serigne Touba ndax mag ñi danoo bëggal Serigne Touba bëgg gu wér mag ñi danoo kennal Serigne Touba kenn gu wér ndax defe naa ne Serigne Abdourahmane Gadiaga ci biir waxtaanam bu ko déglu indi na ci Cheikh Ibra Fall ak taalibe moom nan la topp woon bu tedd bi nga xam ne Cheikh Ibra moom du lu kenn xam ndax sëriñ Touba bi muy nekk njaareem dafa am benn bés am benn na mag moo xamante ne dafa sàkku ci Serigne Touba ne ko. damaa bëgg yére yi nga xamante ne moom ngay faral di taalif xasaay damaa bëgg nga jël benn may ma ci loolu la sàkk ci Sëriñ Tuubaa wax na ne bi mu ko sàkkoo ci ku tedd gi Sëriñ waxu ca dara daal di bàyyi ba beneen jataay man mi daal di raam ndànk daal na man kan la ma doon wax ba ba tey daanaka ca laa nekk Sëriñ Tuubaa ne ko ku bëgg dara da nga fay wutaat dara mag mi daay dugg ci marché njaareem bi daal dafay wun ndimu mooy tissu yi ñu sol bu dëppoo bi nga xam ne Serigne Touba daal faral di ko jëfandikoo wax na ne keroog bi mu ko indilee Serigne Touba ba jox ko ko tedd gi Serigne ngi ko ca teggi ñu rëyee ak ñaari loxo daal di wax mbooloo mi ne Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ndimbal yi boo demee ca jabar ñaata lay faral di jar ñaata lañ wax na ne keroog sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana di gestu mag ñi di laaj ñoom li ñaata lan koy faral di wecc ko mag ñi ku nekk di ci xalaat waaye xool leen li Cheikh Rafal di jëf diggam ak Serigne Touba nga xam ne du lu kenn xam wax na ne keroog ba muy wax loola mag ñi ku nekk di xalaat wax na ne Cheikh Rafal dafa naafalaale te ginnaaw daal di daal ci garab siñ ne ko mbàkke xanaa ba mu ko laalagu waaye bu ñu kenn xamatul lu muy jàpp kenn mënatu waaye bu ko laalee kenn mënatu koo jënd ndax Sëriñ Tuubaa moo ne baaraka lii fil xarakaati wa sukkoon rabbi lazi xaada li kun fa yakun Sëriñ Tuubaa dafa lépp ma barkeel ba bu fekkan xer boo xam ne dafa ko sax Sëriñ Tuubaa bu ko laalee day jébbi foofu la Sëriñ Tuubaa toll diggam ak boromam nga xam ne taalibe bi nga xam ne Seex Ibra doxee na ko diggam ak Sëriñ Tuubaa nga xam ne du lu kenn xam boole ci moom Seex Ibra lépp lu masaa am jox ko ndax wax na ne am na benn bis Serigne Touba daal di yónnee ndaw ci Cheikh Ibra ngir alal ko war a jox wax na ne Cheikh Ibra di jox Serigne Touba di ko jox ba Cheikh Ibra bu dese woon fukk wax na ne dafa joxe juróom-ñeent daal dese wax na ne mag nga fa nekk ñëpp ku nekk di xalaat passeport bu bu rëy boobu naan fa leen Cheikh Ibra yi nga xam ne jëf na ko digg digg mag boromam daal di yëkkati li mu yoroon lépp jox ko Serigne Touba ba dese benn. Cheikh Fall daal wax ma ñi ne benn bii ma téye day téyewuma ko ngir ne man Cheikh Ibrahima damaa bëgg ma am déedéet waaye dama koy téye ngir Serigne Touba bu fi yabalaatee ndaw bu ñëwee ma tekki loxoom dara waaye ma ruf na maa gàntal Serigne Touba daal di wax na man Cheikh Ibrahima saa su ma masaa yëkkati addiya di ko dox Serigne Touba nee bu ma ko joxee bu ma nekk ko jàpp man fàtte naa ko ndax maa ngi xalaat lan laa war a yëkkatiwaat bi jox ko Serigne Touba moo tax Cheikh Moussa daal di ko wax ne ko am ngay gërëm ba am ay dërëm fab ay dërëm jëndee ngërëm loo mas am tàbbal këram ay junni daal nga daan joxe ne ko joxe nga àddiyee gëléem yu sëf ay ngurdu sëf ay koom soldat sa yaa joxe sa doom fàlli faal am na texe ne ko sa ndaw da daan dem ba Gabon di yóbbu ay saaku yu rong di war ca gaale yori boŋ doo dékk lëf ba mu maxe moo tax nga mel ne ak saxaar ku nar a dem dana fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bu mu nit banaan naka pexe nga xam ne Seex Ibra lu mas a am yëkkati ko jox ko Sëriñ nga xam ne ci biir mag ñooñu ba tey ñu yéeme woon Sëriñ Ahmadou Diop nga xam ne bi muy jébbalu ci Serigne Touba booba wax na ne lépp loo xamante ne wàllu luxa la nga xam ne maaliku nuxaat la tudde woon boppam képp ku yëngu ci grammaire arabe moo wax na ne moom maaliku nuxaat moom moo la jiite daa di wax ne wàllu luxa ba tey langue arabe képp ku ci yëngatu maa ngi sëñ Ahmadou Diop Paxa maa la jaraw benn bis la toog ci këram Serigne Touba ne ko Mbàkke man day ñi jëm yàlla ñëpp man maa jaraw Serigne Touba ne ko foo ko mu ne ko teguma ko fenn waaye damaa xam ne bu wax nañ ne booba la nekk sultaanul xaarifin mooy jëm ci yàlla moom drapeau ba moom moo ko yore léegi li ma ci bëgg a misaal moom mi nga xam ne ñëw na raamal Serigne Touba ngir wax na ñu jiite ñi ñi jiitu ci yàlla ñëpp moom moo leen jiite moom dama damay leeral diggam ak Serigne Touba dafa am benn bés ci njaareen Serigne Ahmadou Diop xam moom ci boppam moom mi jiite moom mi jiite ñu jëm ci yàlla futteeku di lay këru njaareen bi wax na ne di ko lay ba yenn naar jóge gànnaar fekk ko mu toog ñu ne ko ñun de Serigne Touba lañ doon wër ndax danoo bëgg a waxtaan ak moom ci xam-xam nattante ci xam-xam fekk ñoom xamuñ lu xew ndax sëñ Tuubaa nee na xafistuma si na xan it dafaatiri falaatakum xam xidmati bi faate sëñ Tuubaa nee na man xam-xam bi ma am nekkul ci ay téere xel mi xel moom laa turaa fil kutubi na man sama dëgg-dëgg xam-xam ku ko wër ci téere doo ko fekk sëriñ Ahmadou Diop wax na leen yéen sëñ Tuubaa ngeen di wër ñu ne ko waaw mu ne leen yéen xanaa xamu leen ne Ahmadou Diaw jawwun wa sayfa ko sama wal addu taxtal jaww foo ko ko xanaa xamu leen na man Ahmadou Diaw Pakhaw man maay jaww ji ku dul Serigne Touba naa na ni jaww ji tiime mbindee fi fa leen waxa ne bëgg bëgg Serigne Touba ci boppam baatu bëgg Serigne Touba mahabbatul habdul xadimi wirdi wax ya la daa seen xasi xayra wirdi nee na leen mahabbatul bëgg Serigne Touba boo demee ci yàlla bay borom aras moom mooy ngën gi wirdi ne leen bay nii wa bay na ma ulama yi buunu wa dana si yax si luxa saa buunu ne leen man Serigne Ahmadou Diaw Pakhaw saabu ngëneel bi moo fóot sama xol ba amatuma benn gàkk-gàkk muy bëgg Serigne Touba nga xam ne man nga xam ne moom Serigne Ahmadou Diaw loolu la leen wax nga xam ne mag ñi ñoom duñ la kenn xam ba tey ci biir loolu nu xool Serigne Pathé Ama nga xam ne dafa am benn bi Serigne Touba ci njaaram Serigne Touba ne ko Pathé Amar waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko xanaa si jëmm Serigne Touba ne ko am na ko waxal leneen mu ne ko man damaa bëgg ba àllaaxira nga lem nga lem ma ci àdduna ni ni parisol ba bu àllaaxira boo ma firee ba bu àllaaxira nga soog maa firi sëriñ Tuubaa ne ko fàggul naa la ci nettali sëriñ Alaaji Mbàkke ne ko fàggul naa la bu àllaaxira man sëriñ Tuubaa bu ma la firee képp ku la gis dina la jaawale ak yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nga xam ne sëriñ Tuubaa tolluwaay boobu fi la tollan ak mañ ci yéeme koo xamante ne mag ñi yéeme woon nañu waaye ci taaliba koo xamante ne ak bëgg sëriñ Tuubaa koo xam ne mag ñu bëggal nañ ko Serigne Touba ndax am na mel mag mu daan wax ne man day ragaluma dee waaye li ma ragal mooy faatu ba noppi nit ñi di waxtaane Serigne Touba ci sama ginnaaw nee na ma loolu laa ragal waaye ragaluma dee te am na mag mu daan wax ne am murit day wërta ragal ñàkk nee na am murit li mu war a ragal mooy yor ba pare te defu ko ci liggéey Serigne Touba nee na murit bu nekk loolu nga war a ragal ndax Cheikh Ibrahima Fall nee na ah li ngeen yor yëkkati leen ko ngeen jox ko Sëriñ Bàmba ndax bu ngeen ko ko joxul bis dina ñëw dina xewi te bu ngeen ko joxul Sëriñ Bàmba ku ngeen ko joxati du ko jël ci wax jooju la daal waxee waxam ji siiwam ja daal di wax ne wërsëg ñaari baat la muy wër ak sëg moom Cheikh Ibra ndax nee na bu nu wëree sëg yi say mbokk tiim la say doom tiim la nee na say soxna nekk ci kër ga muur nu wax ci yow lu baax jàng ñaanal la ba dem Serigne Touba Cheikh Ibrahima nee na lan lay bàyyee foofa moom nga moom mooy la nga jëfandal Serigne Touba waaye nee na la nga bàyyi si kër gi koy waaj a doon Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu sa yónnee ku ca te loolu ca jëfu lu ne buñ eggee ñoom jël ko def ko nu leen neex nga xam ne Cheikh ak mag ñi fu masaa la ñu ngi mat di leeral ak taalibe gi nga xam ne dox na seen digg ak Serigne ndax ni ko sëriñ Abdourahmane Gadiaga waxe li Seex Ibra Faal wax ne man Jibrilu alayhi salaam moo ma jàngal ak taalibe loolu la wax nee na Jibrilu alayhi salaam moo ko jàngal ak taalibe ne ko nan la war a topp Sëriñ Tuubaa ndax ku déglu ci waxtaani Cheikh Yaaram Mbay dafa wax ju am solo te lool ndax Cheikh Yaaram Mbay dafa wax ne moom moo ngi fàttaliku man maa toog ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké radiyallahu ta'ala nee na mag ñenn ci mag ñi ñu ngi toog mu ne leen man Serigne Touba day bis bu ma tëbanatam ñëw jamono te ànduma ak Cheikh nee na bu keroogee nit ñëpp dina na damay woote ak yonent te kon ñëpp dina may wedd te kon bu nit ñi weddee dem sawar waaye Serigne Touba dafa xam ne keroog la suñ borom sëq ci jëmmam sànni ci kanamam muy Cheikh Ibra Fall Cheikh Moussa Ka daal di wax ne mas nay xibaar njëbbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bàmba moo la moom raasi ko jox ko ay pexe raasi ko tegtal ko ay raasi ko jox ko ay pexe tegtal ko yoonu am murit di aw bare pexe murit ba am gërëm bari murit te doo doree di tax texe Seex Ibra Faal nag daal di jóg dëgmal Serigne Touba ngir wane nan moo di ak taalibe ci tënk nga xam ne Seex bi mu ñëwee kër Serigne Touba la Serigne Touba wax ne ibqaa'un wa ikraam yàlla damaa teral te man Serigne Touba dama fi sax Seex Ibra Faal daal di wax ne kon Serigne Touba moo fi moo doon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yor njëriñul nit ñi kon Serigne Touba doom du doomu bàjjanu kenn nit ñëpp dañ koo war a wekk dafa wax ne léeg-léeg ñu ñëw Serigne Touba sol mbaxana wala muy dox ay tànk dox dox wuti Serigne Touba ma teex ko mu daanu nee bu jógee dama Cheikh Ibra xanaa xamoo ma ma ne ko fii ci kanam Serigne tubaa kenn mënu fee xam nee na bu guddee mu dugg ci ay xar fa fuufaam di ma fexeel man Cheikh Ibra waaye nee na ku dul nee na man Cheikh Ibra mboolem ña ma daan dajal ci Serigne Touba maa leen gën a gaaw gën leen a xam yoonu yàlla nee na képp ku ñëw Serigne Touba def na ko noona ba mu wan la naka la naka la ak nan la ba nga dugg see xar fuufa Seex Ibra nee na ci asamaan su njëkk si laa lay kar la ma la defoon ca bëccëg ba nga dugg see xar fuufa nee lu ko raw laa lay def bu ëllëgee bu daje Serigne Bamba nga nga koy yem nga xam ne Seex Ibra noonu la kenn la woon Serigne Touba kon nan gën a góorgóorluwaat ndax defe naa ne ñu ngi yëglu ne waxtu yu nu maye dafa xaw a mat waaye dañ koy tënk kon nu gën a góorgóorluwaat gën ko bàyyi xel bu baax a baax ngir jëm Serigne Touba gën a kenn laat Serigne Touba gën a kenn laal Serigne Touba tey di yëg Serigne Touba bu wér ndax ku man di ñëw jamono te Serigne Touba ñëwul kon ñun sawar lañ jëm te benn bëñ ci gémmañ dafa war a weex ba pare ñoom kon loolu lañ koy bàyyi xel bu baax a baax te Serigne Touba wax na Serigne Amsatou Diakhaté na ko man Serigne Touba bu ngeen ma kenn kennalul dey yàlla suñu borom kennal na ma yont bi kennal na ma ndax yàlla nee na ma jërëjëf sahaba yi nee na ma jërëjëf ñu baax ñëpp nee na ma jërëjëf man Serigne Touba moo tax ku ma kennalul ku ne man du ma sax ndax foxti siwaaya bi xita bi xitaabil baax yi sëñ Tuubaa nee na yàlla suñu borom moo ne kawe naa ñëpp waaye foxti si waaye bi xittaa bi baax yi loolu yàlla moo ko wax daal di wax ne nasaxali minal wara baaxil xadim xan la muham bi an na ni xabdul xadim sëñ Tuubaa nee na nasaxali yàlla moo ma génn fu ma génn minal wara ci mbindeef yi la ma génn bi mu ma génnee ba noppi nan la ma def sëñ Tuubaa damaa yëkkati teg ma nee génn ma ci mbindeef mu wëlbatiku moom yàlla xamal mbindeef ne leen ee eh ba ñëpp wuy ko xan la muham mu xamal leen ne man nag naka man Sëriñ Tuubaa xabdul xadim man jaamu yàlla laa te liggéeykatu yonent bi laa wax na ne Serigne Touba nee na keroog bi yàlla waxee loolu dama ne ko loolu doyut mu ne ko kan lan mu ne ko lan mooy doy Serigne Touba ne ko lii rek a mën a doy nu Serigne Touba bindal Serigne Touba ci boppam moom moo daal di wax ne wëchet léegi yow ma bi kaw ka bi kaw ni xamdaka wa xadimihi wa hinda jamihi jundika ne ko yow yàlla damaa bëgg léegi nga seeral man Serigne Touba man sab jaam laa sab liggéeykat laa boo damaa bëgg sa sa gouvernement bi bu bu bu ma bu ma leen wanee ginnaaw ne wërëñ ñëpp xam ne man sab jaam laa sab laa Sëriñ tubaa daal di wax ne sakartani hinda jamihi jundika yaa xayra jaay xal makas na hindaka nii nu def nii Sëriñ Tuubaa nee na nii la yàlla toogee ca gouvernement ba naan jërëjëf Ahmadou Bamba sakartani hinda jamihi jundika yaa xayra jaay xal makas na hindaka moo tax Sëriñ Tuubaa ku ko waxu jërëjëf it yàlla suñu borom nee na ko jërëjëf yonent bi nee na ko jërëjëf kon bu ko defee ñu ngi taxawlu foofu tey ditu bu baax a baax ndax defe naa ne jëm waxtu moo na ko mayut na ne liñ leen indi leen ëpp na lii teyit weesu woon na lii suñu yéene ëppoon na lii waaye de def ne yitte yi daanaka mooy bari ak waxtu wi day néew lool ba daanaka doo ko doo ko mën a yaatal ni ñu ko bëgg a yaatale ndax ni ko waxee woon baatu taalibe dafa yaatu te it dafa rëy la Sëriñ Tuubaa a rek boo ko fi daari na xayru kan bi wa xayru maxtasa bi xis xis bi daal wax ne ay teggin ak taalibe mooy ngën gi trésor mooy ngën ngën ndàmb bi nga xam ne jullit bi dina ko am ci àdduna ko ñu ngi tuub bu baax a baax te it du wàcce seen kàddu di jégalu bu baax a baax te it dineen yëgal ne taalibe bu xeebu bu ñàkk pas-pas loolu moo doon yëkkati ay baatu ñàkk solo loolu sax eh, di ko jëmale ci mbokk taalibe yi di ci sàkku yi ngërëmul Sëriñ Tuubaa tey Sëriñ Tuubaa may ko ñëpp ci barke borom Tuubaa ngeen jëf